jàngi leen ñaw dëkk ba. xëy na kanam bi raw nañu wax dëkk ba tam boo demee fekk fa tepp tepp doomi tëyeen doomi doomi ndox jàngil doomi mbott jàngil ndox yàgg yàgg bés dana mës a ñëw. doomi tëyeer jàngil bala gaye ko doomi mbër day nduru mbër ñu xam ni mbër lii de man tam man des na sama yaakaar nag. kan moo tax sa équipe maa dem bi. waaw li nga xam ne suñu sànq ba mooy bañ doogoo pare moos. doomi mbar day nduuru mbar ñu xam ni baray baayam maam Njaay daa nduuru mbar ñu xam ni maam Mbaay baayam maama Seck. Touba maama Seck Touba ku tiiray sama baay. tey baas. Signes Couture. nee leen tey baas. Signes Couture. Soubagne la man Ndiaye Savon digg na fi jaakaabale léegi mun. man nga ca ñaaw yi ñaaw yi dafa bari bugguma tardé ñaaw jàmbur. réew eh, mi dama koo bëgg a dëbb daal. allo ah. waa Badiane. Ah. naam. waaw. Badiane. man la maam Ndiaye. Ah. waaw. gis nga ko. du nit wax naa ko xale yi gëmuñu ma nee naa leen du ma nit rab laa sama bàjjan sa ñaw yëpp sa ñaw yëpp yónnee ko sa ñaw yëpp sa sa naqar dëddu na la ñaw yëpp dinaa ko ñaw maa ngi kub di noppalu dëkk bu ma dem wuti fa liggéey amiin waay da ngay daj buntu bi lii la woon ni amiin man bàjjan dafa neex ana ak waa ñibbi na gis nga yooyu banaan xoolal ma banaan bi te maman la daal ko banaan banaan bi moo neex xoolal ma boobu loxo banaan xoolal leen ma boobu loxo bala sa yéer yi am ngeen problème sa yéer mi ba mel ni suul ak bëja sa yéer yi sa a maam suba moom téeral ñëw nag ndax yëpp dem sama yoon nekkul suba kay dañoo war a woo renfort bi pare renfort nag bàyyi leen nag ñu ko libéré wala kon kenn fi toog di fi ndogu da ngeen libéré ba heure ndogu baam bi daal mi baam bi tey lu mu faal a fay laa mujjee sax la journaliste yi doomu mbër day nduru mbër ñu xam ne mbëray baayam maam ma teg Touba ku tiiray sama baay bu ma ñawee war na gis ngeen la vala la vala moo du yàqal ataay ji waa ñu Dakaram la am benn picc amul. doo ma problème picc de. man crème de Versailles laay def waaye. mooy bi ak a yàgg lay sànq. sëpp sëpp sëpp si. seen yaay ba mu deewee nag laa leen yërëm. indi na jooy naa ci xarit laaxe. li ñëpp a ci jooy. waaye nag ba seen ba seen seen papa dox beneen jabar. gis nga loxo yi. <laughs> gis nga loxo yi nii laa bëggee loxo yi loxo yi nii laa ko bëggee gis nga mu nii nga monté ko